Uh, uh. ahlan bikum Mimi Touré ray waa APR yi ba ñu dee wet fa leen na wax seen bopp falee a tontu ne leen yéen waru leen a wax yéen ak seen président bi Macky sàll njombe yi ngeen def ci réew mi tooxi doona yi ngeen def ci réew mi xalalu réew mi ngeen sàcc doomu aadama yi ñu rey ci seen ak nguur sénégalais yi fàtte guñ ko kon ku leen fekk ngeen di attaqué njiiti réew mi jomaay fay ma ne yéen xamu leen seen bopp jana taskatu xibaar yi la doon xamal moom Mimi Touré fa tàmbalee ay kàddoom rafetlu jéego yi nga xam ne Bassirou Fay njiiti réew mi ak njiiti jëwriñu Ousmane Sonko ak gouvernement am defagum nañ ko ci téeméeri fan yi njiite réewum Sénégal yaw seetal ñi ngi jub ñi ngi jubal ak a jubbanti ministre yi ñu fal fañ koo xelloo wàññi na njëgu dund gi ñeen fukki milliards ak benn ñu fay ko opérateur lépp jëm ci baykat yi taxawu leen ba tax foox jomaay na ko yaa ngi ci yoonu baax wi te sénégalais yi gis neen li ngeen defagum ci lu baax te yàggagu leen fi ca yoor yoor yéen a kaay mu ne waa APR yéen Macky Sall ci boppam leen sant ngeen amal point de presse ngir dal ci kaw jomaay fay Macky bàyyee nguur gi ci pexe yooyu la nekk ñoxor xopp ya nekk APR nga xam ne Macky fal sax ministre portefeuille ñoom ñoo doon wax te fa ñoo bëgg poste député ci wote yi di ñëw bëgg yee fitna ba tey Mimi mooy wax nee na fanweeri fan ak benn ci weeru soulier faay sàkku ci njiiti réew mi mu tas assemblée nationale ndax député yii benn bokk yaakaar yi nekkal tuñ fa sénégalais yi luwaa toxal wote yeeg fitna yi am ci réew mi yëpp ñoom ñoo ko wote ci assemblée te déedéet fa war a xaar buñ tasee assemblée defaat élection fal ay député yu bees su ko defee mu dem jàkkaarloo ak ñoom nee na Mansour Faye moom xamu daraf nekk goro njiiti mi moo tax mu amoon ay poste waaye junney milliards yi nga xam ne ñu ngi ko ci tudd fa koy leeral de képp ku sàcc alalu askan wi yoon fay def liggéeyam nee na yooyu yaay fama plainte te man faalewu mu ko bi nag Mimi fa wax ne lenn rek lañ bëgg mooy féewale diggante Sonko ak Jomaay te loolu mënta nekk Sud Quotidien ne yemul fa de Mimi Touré fa wax président Macky Sall na ko munoo nekk di jiite APR ba pare di ko liggéeyal fa nga ci tànn benn wala Macron mooy dugal loxoom ci mbiru réew Sénégal ci wàllu politique te loolu du yoon ba ci xaalis bi ñu fay Macky Sall ginnaaw bu mu nekkee président ba pare fañ ko war a dakkal ca l'observateur Mimi Touré fa wax na président Diomaye fa war a des di jiite attekat yi waaye nag nee na d'accorduma mu yore carrière wu attekat yi maanaam di toxal attekat bu ko neex ak procureur déedéet waaye na des di contrôler looloo gën de leer laneen lu leer ba yegg ca naññi mooy na kàng mu opposition bi fa ñoo noppi fi mu toll ni tekkaaral kenn déggul leen ayow fa ngay xool Khalifa Sall Idrissa Seck Malick Gakou Déthié Fall ñeneen fa ñoo mel ni ñu muuma Walf Fadjri yéen a kaay di ko xamle le quotidien yéen a kaay mel ni ko naan ko quand le chat n'est pas là les souris ponkalu opposition bi kenn déggu waxuñ moo tax opposition bu ndaw bi Bougane Gueye Dany ak Thierno Bocoum ñoom ñu ngi wax yor yor yéen a mel ni ko naan ko ah Bougane Gueye kay ak Thierno Bocoum moom xamuñ mbooloo wax ju bëri rek te li ñuy wax nii di tëb di dal di attaquer Sonko ak Diomaye benn njëriñ ndax sénégalais ñoom ñaar fa ñoo bëgg bi critique yéen a kaay ne ku jégi nag xamal ne président groupe parlementaire ya ca assemblée nationale fa ñoo dajaloo réunion ca seen biir waa benn bokk yaakaar yi nag Abdou Mbow fa la wax ne faa bëgg ñu def noo xam ne président Diomaye dootul mën a tas assemblée nationale yeneen njiitu groupe parlementaire ya na ko hëy ñun taluñ loolu nañ fexe andi coppite ci règlement bi Sonko njiitu jëwriñ di mën a ñëw assemblée loolu moo ñu gën a itteel yi ngay wax ni laas yéen na ko loolu muy wax sax moom Abdou Mbow Macky Sall aaye na leen génne na leen ca fa Moustapha Guirassy jëwriñ ju ñu dénk wàllu njàng ba njàngale mi yoon wi mu baax na trop ci jàngalekat yi ba tax fañ koo rafetlu yaw seetal jëwriñ ji fa signé cent quatre-vingt-quinze acte presque dix mille enseignants fañ cee jëriñoo Le Soleil yéen kaay moo ñu ko xamal lefay yéen a kaay na carrière jàngalekat yi état bi fi mu toll ni fay accélérer arrêté ya bala ñoo à la ñuy mën a fayeeku lu bëri amal avancement ci seen carrière ndax fa daan yéex trop vox populi na loolu fi na ñoom état bu Sénégal jëm ci ak toxal gu war a am ci attekat yi magistrat yeeg procureur yi du yàgg dara da dégg coppite gu bëri gu ci am turbine yéen kaay na affaire bi nag li ko yéexal mooy tànn gi ñu war a tànn kenn ku nekk place ba nga yelloo ñu jox la ko ci loolu lañ nekk les su ko mel ni ku laan leen voilà attekat yooyu nag war nañoo gaaw ñëw ndax ñaari sàndarma yi nga xam ne fa ñoo dee fa ñoo réer Didier Badja ak Fulbert Sambou seeni njaboot fa ñoo dugal ab requête maanaam sàkku ci Ismaïla Madior Fall yoon déglu ko léegi nag ndax raw li gët soxna Mimi Touré mel ni ku laan leen hëy yoon a def liggéeyam jëm Fulbert Sambou ak Didier Badji fa ñoo war a xam bu dee fañ leen a rey kan moo leen rey ak ku ko santaane même ñi nga xam ne fa ñoo dee yëpp ci ñaxtu yi fi doon am juróom benn fukki ndaw fa ñoo a xam ñan ñoo leen reylu yoon dal seen kaw te loolu ngir mu mën a am nag loi amnistie bii man Mimi Touré fay santaane nañ ko dindi ndax jàmm mënta am ci ab réew te dëgg ak yoon amul fa docteur kër Diop njiital FDS les Guelwaar ba wax na réew mi kay fa xam yoo xam ne ay mbir yu doy yu fi am ba tey l'observateur moom fa ci rapport yi nga xam ne corps de contrôle yi fañ koy xamal la ñu xamal ñoom nguurug Sénégal mooy dajale ndaw yu bëri delloo leen ci xàll bi ci tool yi ñu dem bàyyi ñaar fukki ferme ak juróom-ñaar lañ tànn ngir ndaw ñu dem bàyyi ji fa info yéen a kaay fa ñoo xamal ne militaire u France yi nekk Sénégal aw nañ yoonu jógee fi de nguur gu bees gi fa lañ fay nar a jëlee ci ab accord boo xam ne fa koy déggoog France nga xam ne dootul jar soldaaru France yi nekk Sénégal Ousmane Sonko moo ko wax yéen a kaay bi na wàdd moom fa wàññi woon soldaaru France yi nekk Sénégal Macky bi mu ñëwee fa dindi loolu soldaar si gën a bëri Sénégal libération fa ñoo xamal ne ab centre buy dalal doomu Sénégal yi nekk ca réewum Maroc juróom fukk ñett ca ñoom fa ñoo fipp ngir ñaawlu coono nekkee ñeneen ñu nekk ci coono mooy étudiants yi nekk université bu ndakaaru fa ñoo ndox ba pare xamuñ wifi buñ connecté woo internet turbine yéen kaay ne loolu moo tax fañ doon xamal concert castorol tëgg kacax-kacax libération ne Abdou Ndeena Mbooj fa wax ay xibaar yu garaaw yoo xam ne doxaleen bu ñaaw bu amoon kudd yow seetal kudd daal fa am ay liggéeykat yoo xam ne fañ leen di fay te ñooñu amuñ maanaam fa ñoo bind seen i tur rek di leen fay ci ngelaw li ak ñoo ba ñu leen di fay salaire fañ faa signé ay média yoo xam ne média ya amuñ lépp ci xeetu tappale vox populi moom it fa xamal mbir mu doy waar fa xam benn tubaab bu jigéen française fañ ko jàpp ca aéroport Blaise Diagne ba mu yore ñeen fukki kilo dorog bu bon bi ñuy mëq ka fóon cocaïne njëg la di war a ci lu ëpp ñetti milliards ci ab walisam la ko dugaloon takk dere jàpp ko na yoon def liggéeyam rek donte ab tubaab la nag le quotidien yéene kaay moom fa xamal ab xale bu jigéen boo xam ne fa faatu ca ndox ma taw bu bëri bu amoon ca diwaanu Sédhiou turbine yéene kaay na ko faala ci yokkal yeneen ñaaru xale yu góor yoo xam ne ñoom it yàlla ja fa doon taw ñu doon ab carrière boo xam ne fañ ko abandonné ndox mu bëri ma moo leen labloo ñu mujj faatu keneen ku faatu ci anam gu lëndëm gu ñu war a leeral la fay yéen kaay moo ñu ko xamal yaw seetal ki faatu noonu ab xale bu jigéen la étudiante réewum càdd la dëkk waaye nekk fii Sénégal di jàng keroog nag fa doon xuloo ak faram bi yàggu dara rek ñu gis xale bu jigéen ba daanu xattar biku deuxième étage ba mu daanoo ci suuf fa faatu ñàkk bakkanam léegi faram wam doon xulóog nag yoon teg na ko loxo